acca ah, mën nañ la ah, man nag dama la suivre depuis secret de famille ah ñu gis nga après nga ñëwaat euh, valeur am rôle beneen boo ci joué boo xam ne euh, c'est touchant comme on dit euh, déjà nga wax ma sa teewaay fii lan nga gisee initiative bu Clara waaw ñun suñu teewaay fii moom mooy ñëw si suñu bésu bopp loo xam ni wowuñu ci ñun ñoo wootee mu nekk valeur nekk série boo xamante ne ni comme ni nga ko waxee ñëpp ñu koy seetaan nekk série boo xam ne lu ñu bëgg la buy yeete tamit waaw di yee nit ñi rek ñu préserver seen ay valeur ñu teew si fii tey ngir mbégte kontaan muy daal loo xamante ne ni bés bu bu am solo la bu ñu mënul woon ñàkk a teew. Euh, comme li ma la wax si chef de famille lañ la njëkk a xàmmee ah, nga joué ci rôle bu nice boobu série bi am succès et mais valeur dañ la gis beneen rôle yaay bu jurul doom. mais teewul mu téye ko te xam nga tee ko comme comme doomu boppam ñu bëri dund di dund yu kaa yu mel noonu seen jëkkër di leen nax di leen jox doom yi ñu jur yu ñu jur di leen wax leneen quoi di leen nax euh, rôle boobu nga joué ko dan euh, nga ko réussir. Euh, waaw rôle yaay xam nga di ñuy wax ne doom dafa nekk loo xamante ne nii ci xol la sax te jigéen bu nekk bu juree bu jurul doom bu mu gis war na ko def mu nekk doomu boppam. ku jur da nga jur rek waaye xamoo ku muy jariñ suba moo tax ma jël doom ji mu mel ni dama ko jur sama biir euh, pour man nag euh, comme ni ñuy wax góor muy jigéen dëgg rek mooy njëkk dëgg rek mooy mujj te sëy dëgg moo ko waralal sino yaa ngi gis Doudou ak Sira seen sëy mu ngi neexoon tout au début mais bi mu demee ba dëgg gi commencé feeñ mu ko problème yi tàmbali ndax nag ay fen lañ ko lalee loolu la nit ñi war moytu bàyyi ko te xam ne amul njëriñ ndax ay fen lu mu defar tey dina yàqulu ko ëpp suba. sa jëkkër Doudou nga épaulé ko ba tey nii sax euh, yaa ngi koy nekk si kër gi di sëy di continuer am jigéen tamit yuy dund kaay. Euh, waaw. Euh, waaw c'est la femme sénégalaise en général sëy du bu naqaree rek nga daw ndax sëy neexul. Euh, te tamit jëkkër amul lu dul jabaram jabar amul lu dul jëkkëram bu problème amee lu mu metti metti dañ ko war a régler ci sutura ndax kat euh, suñu culture suñu ay valeur may ñu nga nekk ak sa jëkkër ngeen am problème jigéen bi daal di jël ay bagages am dem donte sax am na si droit ndax boo xoolee Sira am na droit dem mais mbëggeel gi mu bëgg doomam bébé fa permettre du ko permettre muy bàyyi jëkkër ji du dem toogul sax ndax am ndax jëkkëram waaye dafa toog ndax doomam ndax dafa bëgg doomam waaye itam dafa gëm ni sëy muñ la te dafa war a toppatoo jëkkëram war ko épauler dimbali ko. est jigéen war na gëstu passé jëkkëram balaa muy sëy moom parce que dafa mel ni yow duudu gëstu woo passé. c'est très important gis nga nit jigéen ni ñu koy tànnee ngir def ko soxna jigéen noonu la war a tànnee borom kër ngir def ko mu nekk borom këram ndax kat. àdduna sëy moom mu nekk ci côté jigéen mu nekk ci côté góor ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk dafay dafay woo jikko yu baaxu moromam kon jigéen dafa war a gëstu passé jëkkëram balaa mu ciy dugg ndax bu ci xasee ba dugg comme li dal sida rek moo koy dal. lu ñu mën a xaaraat nag ci série bi ay rebondissement yu doy waar ay rebondissement yu doy waar yoo xamante ne nii njariñ kese la nañ ko xaar saison 2 mi ngi ñëw tey ñi ngi ñëw ci daanaka tëj saison bi donc mais saison 2 bi mu ngi ñëw. merci à vous kontaan nañ. même regard bi tuuti rek. voilà léegi xoolal kii ngay xool kii ngay xool